kenn du xam suñu garab ba noppi di am gàcce si jigéen may leen ma nopp ma xibaar leen ki yàlla may xam-xam ci wàllum ngóora Serigne Habib Dia borom góoru Saalum gaaw a yegg moom jeex na ci miim réew yow mi di sëy tey gaaw a egg wala ngay nekk ak sa soxna di gaaw a yëg sa bopp wala nga néew kàttan boo ko sekki ak sa soxna sa soxna du kontaan ci yow ceytale ak a bon musiba la daw si gaaw seet si jëmm ji kéemaan la ci wàllum ngóora day yokk ndoxu góor faral ko ba mu far dana dijjal la kattoon dana yéexal li gaawoon ci wàllum sëy teg si sa junior gi moom day dëgër këcc te it li ci gën a doy waar mooy garab bi dalay lekkloo di la nelawloo di raxas sa deret bi ba mu set wecc te gis nga boo seeree ba nga jëfandikoo góoru saalum bi yow moom douze ba rek da ngay dem douze par force tey góoru saalum ak efficace yaa ngi yaa ngi yaa ngi. ataaya de nay far di foor di fuur. toogal ak ma xelal la tey gàlle bi kenn ñoo fi man ak yow kase ñoo fi nekk. Hmm. meer génn booy bi génn. sa papa ngi génn. bu xasee ba xam jeex du gaaw a waaye waale yaa ngi fàttaliku sa njong la yow. man njong waaye waale yaa métti woon ak njong médecin bi daal dañuy coppet rek tuuti la ci dagg rek nga ni pëccët. waaw hmm. ah, nañ tàngal kër nañ koy tàngale. bu ñu laa bàyyi affaire fii toj. yàlla maa xam ne baal ma doo wax waxi nit. non baal ma dama ko déggoon rek man maa ngi jéem. ah déggoon ma damay toog ay yàmbaay. baal ma baal ma toos baal ma baal ma am xel nga jàng. ah ni da nga am taalibe am yar respecté sa nijaay. da damay wax da nga maa accusé. foofu sama jàmm. waaw xaw ma ci dara am xel jàmm. kon tey am tuuti. alhamdulilah. As. ma waxtaan ak sama doom. man ma jóg may la nga waxtaan ak sa doom. As kii man maay bàyyam. Adam man maay nijaayam. waaw boo soxlaa sa doom woo ko ci biir ngeen waxtaan du ma fa ñëw. xam naa ne bu doon takk tey soxna faw nu ne ana nijaayam. bu wér loolu ko werentewu ma ko. waaye man maa ko jur. damaa soxla sama doom. waaw man naatable wu ma jur geeg yooyu man xam naa ne yaa ko jur mais damaa toog man di waxtaan boo eri sa doom ci biir nga waxtaan ak moom nest pas man daal aw ma jabar aw ma kër mu leen neex ngeen may def. may ma rek ma waxtaan ak sama doom. c'est pas méchant. tos am xel am na yoo xam ne boo ko mënee sax waroo koo def gor man gor laa nag. indi baax la. bu ngi def. loolu bu daal bu ma xoolee damaa mer sa ndijaay ba muy ñëw fii ci kër gi di fi nekk ëndaalewul dërëm charette laa ko jëkk jëndal mu xëy jaay façon. fas bi daa dee jaayu ma ko. dégg kii wax as waxuma yow. yow wax ko li ma la wax. moo gën nga ne di wax ay tukki bu tukki wuñ de. laax ni gaaj. na ko wutal la wutal jabar. jabar su ma ko wutalee jabar lu muy yore jabar. waaw yow xëy kese dafa yore jabar. waaye ah xëyuma gonuma di jabar la laa koy dee. léegi daal demal nga xool marchandise bu dee foo cantine mën naa la koo nga góorgóorlu dinaa keti trois cent mille franc jox te na nga fexe nag ba tegal ma résultat ne ma trois cent mille yi nga ma joxoon lii laa am papa comme bénéfice man xaaruma ci yow dara ah, baax na am problème comme nga ko bëggee waaw naa ko defee non baax na alhamdulilah léegi trois cent ma koy ah may ma nag feexi fan rek dama koy lijjanti fan maa ngi dem ci jumaa ji te ñëw incha allah ok bëgg na jërëjëf jaay kan ngay jaay di ko verser waaye dépassé nga foofu. yaa ngi koy jaay. waaw loolu moo gën toog ci kër gi. waaw moo gën toog mais yow fi nga jógee dëkk ba ñu ñëw la saret nga jël saret bi jaay ko ah demal mais su ma joxee 300 mille du ma ci teg benn kanting fii di jaay di ko verser non déet jaamu verser da ngaa war a demal sa bopp man foofu laa lay wax damaa bëgg nga dem xam nga laa bëgg ci 300 mille su ma ko joxee waaw wut ci benn kanting bu yem commencé jaay jox la benn départ nga mën a takk soxna indi ci kër bi soo laal 300 yi ñu génn naaw ci dëkk bi falaay yëngal suñu bopp yow ak yow nii takal jabar moo gën ci yow ah